asalaamualeykum wa rahmatullah yow doomu aadama na dëddu àdduna te won ko ginnaaw te gàddaay ko ndax àdduna day wore te day naxe na dëddu àdduna te xam ne yàlla dafa bind àdduna ngir yow waaye bindu la ngir àdduna koo xam ne dañ kaa bind ngir yow waroo daw di topp ci ginnaawam waaye moom moo war a daw di topp ci yow te bañ laa jot na xam ne àdduna saa yoo ko toppee rek topp ci ginnaawam doo ko jot ba mukk kon na nga dëddu àdduna dëddu àdduna bu ñu ko waxee nekkul na nga bàyyi solu bàyyi lekk bàyyi naan na solu na nga war a soloo ngir jëme yàlla di lekk comme na la ko suñ borom xéewalale waaye itam di naan ci ni mu la ko wàcceelee ci ay xéewalam dëddu àdduna mooy mboolem bagaasu àdduna yii nit ñi di puukarewoo ak di ko xiiroo ka ŋaayoo nga génnee ko ci sa xol te xam ne su nekkee sa xol yàlla du mësa am place ci sa xol kon boo bëggee suñu borom subhanahu wa nekk ci sa biir xol dangay génne àdduna ci sa xol li jiitu ci jublu suñu boroom subhanahu wa taala la ca jiitu moom mooy génne àdduna ci sa xol faaw dañoo muri walaanum àdduna ci sa xol dañ koy mën a def mooy tax nga dëddu àdduna mën a jublu sa borom kon dëddul àdduna wan ko ginnaaw bañ koo def ci sa xol moom mooy tax suñ boroom subhanahu wa mën a nekk ci sa biir xol yàlla kat dafa wax ni xajul ci asamaanam yi xajul ci suufam yi waaye ci xoli doomu aadama yi rek la xaj kon boo bëggee yàlla dugg ci sa biir xol bii nga xam ne fi la xaj faaw nga génne àdduna mu xajal ko suñ borom mën a dugg waaye fépp foo xam ne àddunaa nga fa wala leneen a nga fa suñ borom xol booba du fa dugg